këppoo ñu war ci ñu war ci kaw ka war ci kaw waa ji bañ waree ci kawam am ku ñëw ne eh, xëcc leen ñi ci kaw bàyyi ci suuf mu ne ko xanaa dañ laa warul <laughs> waaye yéen xanaa dañ leen a tëjul baa tëj seen mbokk moo tax ngeen wax loolu kuñ baal kay dara nekku ci nañ leen baal rek waaw nañ leen baal waaye senegal dafa naqari soo balee ñu ne wuy kee ngi lekk xaalisu réew mi ñu koy bàyyi waaw moom buñ ko bàyyiwul du fay xaalisu réew mi du ko fay kon nañ ko bàyyi rek di nekk ci kaso bi day day day xatal foofu rek li gën daal ci président mooy mu jéggal leen dooga a dem na leen baal doog a dem ku àndul ci baal ga nag la daloon waaje rek moo la dal dañ laa waroon rek kuñ tëj da nga da da nga bëgg ñu génne la kuñ tëj sa mbokk da nga bëgg ñu génne ko kon nag kon bëgg leen ñu génne nii ñii nag dara nekku ci est ñoo xam dëgg ba pare parce que li ci xewoon bëri na ñu bëri gaañu woon nañ ci ñu bëri seen ay bien ñu daal ko si woon yàq que jotul balaa ñuy baal nit ki ñu xam euh, fan la dëgg féete ba pare. dafa dëgg féete duñ ko xam de. Ah. dëgg fu féetee. <laughs> dëgg ci boppam moo amul. dëgg ci boppam moo amul. dëgg bu amoon dara du xew. ku dëgg amoon dara du xew. bu buñ doon def dëgg dara du xew. waaw waaye bu ñuy wëri dëgg duñ gis dëgg parce que boo laajee nit ki xam nga ni ñi tëj ku ci dëgg woon. ba ñu laaj la nga ne wax dëgg yàlla lii maa ko def kon jeex na. Mm-hmm. lii maa ko def jeex na waaye da nga fay dana la jaral nga waat ci alxuraan waat ci téere yi waat ci asamaan waat ci yàlla ne man dañ may rey waaye du du man fekk yaa def loolu yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim ñu ngay wax kat loo xam ne nekkul seen xol ya waaw ah, ndax lañuy wax nekkul seen xol yi loolu doxul ko bu fekkoon dëgg am na nag dañuy doxal dëgg waaye dëgg amul ndax ki nekkul ci dëgg danaan ci dëgg la ni ki nekk ci dëgg ki nekk ci dëgg moom itam eh, ni ci dëgg la ne waaw loolu loolu doxul waaw kay ci koor gi dañuy gis ni rek euh, comme euh, ni muy waaj a jeex da ngay gis xale jigéen ñi ak euh, seen copain yi ñu souvent ñu naan dañuy tëj saison bi waaw loolu moom doxul parce que dañuy tëj saison bi dañuy tëj saison bi foo ko déggee yow li ngay def doxul waaw parce que tëj saison ci ci weeru koor amul ndax seen copain copain lan da daan seen far yi waaw kay seen far yi dañuy tëj weeru koor yi dañuy tëj seen euh, euh, weeru koor yi ci seen far yi bu ko defee ñu ñu fan bi mujj ñu mooy ko yàlla njaalo ko caaxaan ko ba kontaan doo ko bàyyi bu bu weeru jeexee ñu ne dañ koy ubbi waaw tëj saison ubbi saison tëj ko ci mooy yàlla ubbi ko ci mooy yàlla mm-hmm. tëj ko ci njaalo ubbi ko ci njaalo loolu doxul nit dafay xam ni jullit la mu ñu xam ne jullit nga aussi ñu xam ne nit nga ku niti waaye nit ñi ko nit ñi kenn xamul lu ñu doon boo nekkee nit ku nite am na loo xam ne da ngay demee calcul calcul ngay demee waaye boo di nit simple nga rek yaa xar yem yaa xar yee yem yaa bëyee yem yaa nag yem parce que xar moom li mu bëgg lan la lu mu lekk lu mu naan fu mu tëdd jeex na loolu mooy mooy wàllu nit waaye ku niti nag euh, dafay dafay dafay calculer lu bëri am na loo xam ne doo ko lekk am loo xam ne doo ko naan am loo xam ne doo ko sol am na yu bëree bëree bëri da nga koy da moytu mm. waaw loolu moo ci nekk. koor gi ak yàqante bi parce que souvent dañuy gis ci réseaux sociaux yi ñu bëri dañuy nekk ku nekk loo xamal sa moroom ci lu bon euh, nga wax ko surtout nag jigéen ñi ñi ci nekk ñenn ñi tamit ci commentaire yi euh, nekk rek di wax ay commentaire négatif lu ñaaw la ñuy wax euh, tey lan nga ñuy wax ci loolu. ah lu ñaaw de yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg a wax lu ñaaw ci deri nit ñi. danaa leen mbugal fii ci àdduna te buñ dee ma duma leen waaw ñi nga xam ne dañuy wax lu ñaaw ci dëri nit ñi danaa leen duma fii danaa leen duma fële wax ju ñaaw baaxul parce que nit bu fekkente ne danga xam lu ñaaw ci moom danga koy nëbb waaw boo xamee lu ñaaw ci moom suturaal ko waaw gis nga kuy xaawi sutura nit ñi sa sutura dina ma sa xaawi ko mm-hmm. xaw ma kañ lay doon na waaye dina ma sa xaawi ko mm-hmm. kuy xaawi sutura nit ñi di enregistré nit ñi di yóbbu seen i enregistrement di yóbbu fu ne bés dana ñëw su sutura doo ci man dara nañu nañu suturaal seen bopp suturaal nit ñi kenn ku ne nga xool ne tey buñ ma waxaloon lu bon mu naqari ma kon doo ko waxal nit kon doo ko waxal nit voilà démb waaw loolu loolu baax na parce que itam euh, bu ñuy sargal jigéen njàmbaar gaa tax waaw njàmbaar ga mu def moo tax ñu koy sargal am na jigéen ñoo xam ne kenn du leen sargal ndax ñoom caay-caay ga ñu def tax waaw caay-caay lañu def lu bon la ñu def lu xaraam la ñu def loolu rek a leen neex nag waaye ñi nga xam ne dañ doon xaram te nekk comme jigéen ñi wàllu mbóoj ni ñu meloon noonu la am na jigéen ñu mel noonu moomi sekk jàmbaar la woon jàmbaar piir la woon ndax moo doon directrice télé bi xam nga loolu ku dem ba doon ko jàmbaar nga parce que jiiti ay nit dafa jafe kon nag boo demee ba jiiti ay nit dëgër ca nekk ci koo xam ne ku ñëpp bàyyi xel la ah kooku jàmbaar kon li waa seen TV de baax na loolu dañ leen ci sant di leen ci gërëm waaw mhm. du ñuy wëri dëgg duñ gis dëgg parce que boo laajee xam nga ni ñi tëj ku ci dëgg woon ba ñu laaj la nga wax dëgg yàlla lii maa ko def kon jeex na lii maa ko def jeex na waaye da nga fay dana la jaral nga waat ci alxuraan waat ci tiir waat ci asamaan waat ci yàlla ne man dañ may rey waaye du du man fekk yaa def loolu yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi quluubihim ñu ngay wax kat loo xam ne nekkul seen xol ya waaw ndax la wax nekkul seen xol yi doxul ko bu dëgg am na nag dañuy doxal dëgg waaye dëgg amul ndax ki nekkul ci dëgg danaan ci dëgg la ne ki nekk ci dëgg ki nekk ci dëgg moom itam eh, ni ci dëgg la ne waaw loolu doxul euh, euh, euh, waaw loolu moom doxul parce que dañuy tëj saison bi dañuy tëj saison bi foo ko déggee yow li ngay def doxul waaw parce que tëj saison ah, ci ci weeru koor amul ndax seen copain copain lan danga seen fari waaw kay seen fari dañuy tëj weeru koor yi dañuy tëj seen eh, eh, weeru koor yi ci seen fari bu ko defee ñu ñu fan bi mujj ñu mooy ko yàlla njaalo ko caaxaan ko ba kontaan doo ko bàyyi bu bu weeru jeexee ñu ne dañ koy ubbi waaw tëj saison ubbi saison tëj ko ci mooy yàlla ubbi ko ci mooy yàlla tëj ko ci njaalu ubbi ko ci njaalu loolu doxul nit dafay xam ni jullit la ñu xam ni jullit nga aussi ñu xam ni nit nga ku niti waaye nit ñi ku nit ñi kenn xamul lu ñu doon boo nekkee nit ku nite am na loo xam ne da ngay demee calcul calcul ngay demee waaye bu di nit simple nga rek yaa xare yem yaa xar yee yem yaa bëyee yem yaa nag yem parce que xar moom li bëgg lan la lu mu lekk fu mu tëdd jeex na loolu mooy mooy wàllu nit waaye ku niti nag euh, dafay dafay dafay calculer lu bari am na loo xam ne doo ko lekk am loo xam ne doo ko naan am loo xam ne doo ko sol am na yu bëree bëree bëri da nga koy da nga koy moytu waaw loolu moo ci nekk. ah lu ñaaw de yàlla nee na eh, ñi nga xam ne dañoo bëgg a wax lu ñaaw ci deri nit ñi danaa leen mbugal fii ci àdduna te buñ dee ma duma leen waaw ñi nga xam ne dañuy wax lu ñaaw ci deri nit ñi danaa leen duma fii danaa leen duma fële wax ju ñaaw baaxul parce que nit bu fekkente ne danga xam lu ñaaw ci moom danga koy nëbb waaw boo xamee lu ñaaw ci moom suturaal ko waa gis nga kuy xaawi sutura ni ñi sa sutura dina mën sa xaawi ko xaw ma kañ lay doon waaye dina mën sa xaawi ko kuy xaawi sutura nit ñi di enregistrer nit ñi di yóbbu seeni enregistrement di yóbbu fune bis bés dana ñëw sa sutura xaawi ko doo ci man dara nañu nañu suturaal seen bopp suturaal ni ñi kenn ku ne nga xool ne tey buñ ma waxaloon lu bon mu naqari ma kon doo ko waxal nit kon doo ko waxal nit waaw loolu loolu baax na parce que itam euh, bu ñuy sargal jigéen njàmbaar gaa tax waaw ga mu def moo tax ñu koy sargal am na jigéen ñoo xam ne kenn du sargal ndax ñoom caay-caay ga ñu def a tax waaw caay lañu def lu bon la ñu def lu xaraam lañu ñu def loolu rek leen neex nag waaye ñi nga xam ne dañ doon xaram di nekk comme jigéen ñi wàllu mbooj mm-hmm. ni ñu meloon noonu la am na jigéen ñu mel noonu Momy Seck jàmbaar la woon jàmbar piir lool ndax moo doon directrice télé bi xam nga loolu ku dem ba doon ko jàmbaar nga parce que jiiti ay nit dafa jafe kon nag boo demee ba jiiti ay nit dëgër ca nekk ci ko xam ne ku ñëpp bàyyi xel la ah kooku jàmbaar kon li waa seen TV de baax na loolu dañ leen sant di leen ci gërëm waaw ah, oh. am solo ba tey ci mbirum sargal jigéen ñu jéggi ci ay scandale ay waxu audio wala ay kilifa ñoo ki nga xamante ne mooy ci réew mi gis ko ci benn live bu ci waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Fall waxam ñu ci dégg ay loo xamante kàddu yu xaw a yoo xam ne boo déggaa sa taf sa nopp ci kilifa ci mag ñu dégg wax yu wax yu mel noonu ak ak réew mi toll noonu waxi lan la waxe laan la ah waxa yow itam man kay boo may laaj danga may laaj lu leer danga naan ma Farba Ngom nee na nangam wala de Aïssa a Fall nee na nangam ma wax la ne yàlla nee na nangam waaw kay. ci ci liñ dégg bokk xam nga xam xam dëgg la waaye dañoo dégg ñu ni Aïssa Diop Fall di ko wax di euh, kii Farba ne ko soo ma seet see naa la naa ah waaw mais loolu loolu loolu loolu loolu loolu garaaw na bu fekkee ne waxi Farba la waru koo wax su dee ay sëtu Jub Faal waru koo wax ñoom ñaar ñëpp ku ne am na loo doon ci réew mi ay sëtu Jub Faal am na lu mu représenté ci réew mi lu rëy rëy man jël na ma ay yoon waxtaan nañ ay yoon xam naa ko bu baax a baax a baax waaw Farba Ngom xaw ko moom xaw ma ko hmm. ndax miinantiwuñu waaw miinantiwuñu benn yoon daal laa mës a ci ci gisee ak moom booba mu nga nekkoon xaw ma waaye maram fay sàll jëm bañ koy ubbi keroog euh, farba defa euh, am na kum fa saaga kum fa ne ko yow billaahi bu ma bu moytul bu moytul dinaa la nangam ndax yow yow bëggoo Macky Sall te fu Macky Sall wootee nga ñëw di jël alalu jàmbur te bëggoo ko mm. man maa fa taxaw keroog wax ca calmé ko booba de xam naa Farba Sonko Ngom mm. bu fekkee boobu bu kay boobu xam naa ko moom waaw bu ne bu na xaw ma xaw ma ko waaye waaye xam naa wax ju ñaaw baaxul ku ne xam na ne baaxul wax ju ñaaw baaxul mm. waaw la laa yuxibu llaahu jahra bi suu illa man zulima yàlla nee na bëgguma kuy siwo lu bon lu dul kuñ tooñ kuñ tooñ nag bu la neexee buñ la waxee lii nga wax le la buñ la tooñul defuñ la dara siiwal lu bon bëgguma ko man yàlla loolu la yàlla wax ah laa yuxibu llaahu jahra bi suu illa man zulima voilà xale yi nga xamante ne bëgg na ñoom noonu nan la ñuy def yi nu def lu ñuy def du du ko jot ngay topp ko di du ko du jot nga roy ko da nga yow kay xale yi ñoom ñooñu se seen yoon xale yi xale yi nga xam ne boo len gisee dañ naan waaw lii luñ koy waxee lii mag dana ko wax waaw lu mel noonu kooku dana roy ko kooku du ko roy da ngay roy kay mooy koo xam ne mat naa roy waaw kay ci lu baax waaye doo roy lu bon lu bon kenn du ko roy di lu bon ken du ko toppandoo kenn du ko roy incha allah. Mm-hmm. waaw lan mooy parce que boo xoolee ñu ñoom ñëpp ak ñoom ñëpp ak ay kilifa la ñu jiite ay mbooloo ah nekk ci réew mi loolu lan mooy rôle daal ku la gënul Pape Serigne Mbaye Mansour nee na ku la gënul mënulaa yëlif ku la tanewul du la yëlif ku la gën jikko moo la yëlif ku la tane moo la yëlif waaw waaye koo xam ne tanewu la gënul la jikko mënulaa yëlif ku la gën jikko rek moo la gën a mën moo inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla nee na ki gën a tedd ci yéen kooku moom moo gën a ragal yàlla ci yéen kooko leen gën ki gën ci yéen mooy gën a ragal yàlla kon nag ki gën a ragal yàlla kay jeex na hmm. ba tey ci waxtaan bi li gën a fës encore ci na ci nga xamante ne moom mooy eh, Guy Marius Sagna daal di dugg daal campagne di kilifa dangay ngay wax waxu kilifa mm-hmm. waaw waxal waxu kilifa mm-hmm. waaw mu jeex waaye bu fekkee ne danga fa nekk di campagne di wax wax wax yu kenn xamul di saaga di xaste di nangam nangam loolu baaxul da ngay wax wax ju waxu waxal wax ju waxu waxal wax ju waxu wax ju rafet daal nga wax ko mu jeex waaye daal saaga wala xaste wala wax ju ñaaw loolu baaxul waaw nañ ko moytandiku bu baax a baax a baax insha allahu taala hmm? ah waaw loolu fenn la rek fen la rek fen rek la xam nga ne wóor dikk naan wuy bu ngeen ma watee lee danaa def nangam danaa def nangam te ñun ñu bëri jaar nañu fi ci ñun jaar nañu fi wax ko te defuñu ko kon keneen ku ko keneen keneen ku fi jaar wax ko itam dangay waaru mm-hmm. waaw mm-hmm. wax loo dul def fen rek la fen te fen moom yàlla ne na fa waylun lil mukazzibiina mm-hmm. ñii fen ñëpp safar lañ jëm yàlla ko wax waaw fa waylun lil mukazzibiina ñiy fenn safara la ñu jëm waaw du sax du sax safara bu bu tàng waaye bu ko gën a tàng ndax pantere safara xam nga ne tàng na booboo gën a tàng te foofu lañu jëm kon nag bul wax nit ñi loodul def waay waay waay waay wateel leen ma insha allahu am naa yéene def nangam sama yàlla jàppale am naa yéene def nangam insha allah su la yàlla jàppalee boo ko deful ñu xam ne amoo yéene te réew yàllaa koy doxal nit du ko doxal yàlla mooy doxal réew ndax mooy fal mooy fal ki koy jiite yàllaay fal koy jiite ti buur du dof buur bu dof kenn mësu koo gis buur du dof buur day nite waaw kon nag nañ xam ne ne ku yàlla fa rek moo fi ne tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha yàlla mooy fal ku ko neex mooy folli ko neex kon nag nañ bàyyi yàlla ngir mi rek yàlla moom moom moom lu ko neex loolu am lu ko neex du am naam campagne bi mais dégguñu kenn ci ci ci candidat yi wax programme diine maanaam su ma faloo kat wala kër këru diine naa def léegi kenn. këru diine loolu da tax da da tax a falu réew mi leen tax falu réew mi ci boppam moo tax ñu leen di woteel ku gañe danaa def nangam ci réew mi këru diine yi ci réew mi lañ bokk waaw ci réew mi lañ bokk waaye nag boo damay def nii ci këru diine damay def nii ci këru diine këru diine doo fa def dara. waaw nañu nañu bàyyi loolu ku gañe daal ré këru diine yi ci réew mi lañ bokk nga defal leen nag leen war a defal waaye doo doo doo leen teqi fële nag naan danaa defal këru diine yi lii naan pour ñu faral la wala pour ñu sànni la wala pour ñu ànd ak yow loolu rek lañ ci bëgg loolu du wax loolu du wax nañu góor góorlu daal di wax lu nuy def te moytu lu dul def nañu góor góorlu di wax lu nuy def te moytu lu dul def mm-hmm. ndax itam dara jaru ko fi ana Senghor ndeysaan dem na ana ab lay Wade ana Abdou Diouf léegi ana Macky léegi ñu ne ana Macky Macky léegi mu dem waaw ki fii toog sax léegi ñu ne anamu léegi keneen ka fay toog ñu ne anamu donc gannaaw anamu anamu ti ñëpp ci loolu lañuy mujj dañ ko rafetal waaw ku fi wax loo dul def yàlla dina fudd sa ndigul sa ndigg ku wax loolu def dana fudd sa ndigg parce que yàlla kenn du woo ay jaamam ci ay caaxaan da nga leen di woo ci dëgg waaw kay dafa am soxna soo xam dafa am ñaari ñaari doom mais ñaari doom yi bokkuñu bàyyi kenn ñoom ñëpp dañ ñoom ñoom ñaar ñëpp dañ ko ëmbal léegi nag mu faatu mu léegi mu bàyyi ci alal alal ju bari léegi imaam yi ñu ko yow doo miraat doom yi duñu duñu doon duñu doon seen yaay parce que doomu jaaloo la doom dana doon ndeyam baayam la dul donnu ilimaan ji xamul dara dara la xamul doom dana donn ndeyam baayam du ko donn waaw su doon baayam a dee nit ñu ne dañuy donn ñu tere leen waaw kay waaye seen yaay dee bañ a donn sa ndey bu dee da nga koy donn doomu njaal dana donn ndeyam du donn baayam nag waaw dañoo seetlu ni njiitu réew mi président Macky Sall si wax mi mujj des fois naan damay dem bàyyi leen nag maanaam mel ni ku xaw a sonn ci réew mi daal parce que muy waxee daal dafa dafa bëgg daal dem rek bàyyi nag réew mi dem te ñu doon ko joxoon réew mi joxoon ko ci ko ci ay loxo yu sell est-ce que tamit Macky li li muy wax nii nekku ni eh, yenn ci opposition bi leen koy wax moo tax mu xam mel ku ko lu ko metti moo tax muy waxee noonu. waaw loolu loolu xam nga Sénégal dafa naqaree jiite. da Sénégal dafa diis. man de billaahi wallaahi tallaahi jox ma ma nekk président de la république billaahi jox ma golo ma ko gënal def ma golo laax moom ma gënal waaw parce que li ci li ci xew yëpp dafa métti saaga ndey surtout ndey ndey ni mu fooree ñu saaga sa ndey te doo gis ki ko saaga di la wax lu ñaaw lu dara jaru ko ak ndey ni mu fooree ñu tibb tibb sa ndey di wax lu bon di wax lu bon ci sa yaay loolu nga nekk golo sax a gën nga xam ne doo doon nit ñoo xam ne yow bokkoo waaye nekk fi di wut président jaralu ma ko billaahi jaralu ma ko mukk ci àdduna waaw sama ndey nag am am na lu ma sama ndey ma gënal fukki junni Sénégal waaw fukki junni Sénégal sama ndey ma gënal parce que moo ma jur moo ma moo ma moo ma ëmb moo ma imbi kooku duma ko yemaleeg dara moo tax Sénégal mu ngi noonu Sénégal day réew mu métti Macky sàll def na li mu def waaye tey jii bu ne maa ngi dem bale nag seen Sénégal baax na ah, dañ ko joxoon moom moom itam jox nañu ko ah, boom kay buñ ko joxee ci loxo yu sell ba muy demi teg na ko ci loxo yu sell ah yéen a yéenay nag lu leen neex yéenay seet da ngeen ànd wala du ngeen ci ànd waaye moom teg na ko ci loxo yu sell rek <laughs> loxo yi mu ko teg nag bu leen neexee ngeen ànd ak moom bu leen neexul yéen a xam. waaye moom teg na ko ci loxo yu sell li nga naan mu ñu teg ko ci loxo yu sell war nañu mu te balaa dem mu tegal ñu ko ci loxo yu sell teg na ko ci loxo yu sell yam jàpp ne moo sell kon nag bu ngeen bu ngeen ko àndeek moom ngeen def ko bu ngeen ànd ak moom ngeen bàyyi ko. ki na ñëw ndax responsabilité bi maanaam dina xam li responsabilité yor réew nag parce que Sénégal nga ko léegi yor ko yombul et puis maanaam nekk président Sénégal nekk loo xam te du jafe la. est-ce que kii naa xam li nga xam ne naa xam. ne responsabilité yow lu réew loolu ko ah, itam xanaa kuy kuy xëccum réew kay war ngaa xam loo ko yore kuy xëccum réew ne man dama bëgg a jiite réew mi war ngaa xam yen bi ngay yenu ndax ku ñuy yen war ngaa xam àttan ko wala àttanoo ko ak yen bi foo ko jëmee bu fay yeggee nu nu ku lay yenni loolu war nga koo xam waaw bu ko defee nag euh, ki koy ki ki yàlla jiite gis nga yàlla bu la tànnee dalay jiital bu la jiitalee xamal la ngay dem li bon nag mooy nga defe ne yow yaay defee réew mi fekk fekk deferoo ko li gën mooy ku jiite daal joxal ko yàlla delloo ko yàlla soo ko delloo yàlla moom mu téyel la ko soo ko téyel sa bopp nag mu de moom mu seetaan la te yàlla ku mu seetaan nga gaañu ku mu seetaan rek nga daanu ñépp ci yem la. am na euh, ci euh, ci li ñu rumal ak a kan. déet moom kay danga maa diw la. <laughs> loolu dañ koy ruumanaat ci suuf. ah déet lu ñuy ruumanaat nag wérul. wax ci suuf maanaam ma ne lu ñuy wax ci suuf wérul. lu ñuy wax ca kaw moo wér. te la ci ëpp sax wérul waaw. nit ñi mel nañu noonu rek ma góor jigéen góor góor góor jigéen daal mooy koo xam ne dañ koy séye ak ka koy séye ñoom ñaar ñoo yem kay séye ak ka muy séye dañ leen di boole rey waaw buñ leen reyee ba pare sang leen sàng leen jullee leen jébbal leen seen boroom yàlla xam lu muy def ak ñoom waaw waaye nag waaye waaye diw nii lay mel wala nii lay waxee wala diw nangam góor jigéen la loolu loolu xas nit la boo ko defee yow dañ lay duma parce que amoo seede yu mat yow dañ lay duma yow mi koy wax waaw yow mi koy wax nit ki te amoo ci lu wóor dañ laa duma yow yow mi nga xam ne yaa koy wax da ngay am lu la wóor kay ne lii kii góor jigéen la dañ koy séyee waaw kay waaw kay mooy ab baat bi ngeen waxoon rek moom lañuy juutal waaw nga xam ne dañ koy juutal di ko séyee fa cabinet yi génne loolu mooy góor jigéen waaye waxuñu ay nii naa naa yooyu loolu góor jigéen ba koy sëyee foofa nag kooka lañuy ñuy jàpp rendi ko rey ko dañ koy jam di ko jam di ko jam di ko jam di ko jam ba mu dee ka ñuy ñu jàpp ko di ko jam di ko jam di ko jam ba mu dee ñu boole leen sang sang julle yóbbu ci armée li bàyyi ko moom seen yoon hmm? ah, ñuy rey ñuy jiitee réew hmm? ku ñuy rey du jiitee réew di ku ñuy jàpp di la rey doo jiite réew buñ ko reyee kay du jiite réew waaw. buñ la ko àttee fii jeex na moom kay àtte bi yàlla wax buñ la ko xasee àtte fii ci àdduna jeexal nga buñ la ko àttewul nag buñ demee ba yowmal xiyaam dañ la tegaat loo xam ni dana méttee ni jamat dee dee du am na waaye dana métti noonu xam nga ne jam boo dul dee moom métti na waaw boo boo dul dee métti na ñu jam la ko fii daal moo gën voilà waaye li nga wax buñ la àttee fii dootuñ la àttewaat. Hmm. ci quelque benn rek ci quelques mois ci quelques weer ñu dem ñu dem est que jaroon na ñuy changer ay gouvernement bay changer ay ay ministre changer. parce que parce changé gouvernement bi maanaam wàccee Amadou Ba teg fii euh, Sidiki Kaba est que jaroon ko ak quelques semaines ci élection bi. Ah, du moom moo mooy président ba tey ah. moom mooy président ah. mooy seet lu ko neex rek mu def fii mu ngi fi daal lu mu def rek noonu la waaw bu dee lu jaar yoon bu dee lu jaadu lu mu ci def noonu la moo fi nekk di président su ko neexee sax folli tey Sidiki Kaba fal keneen. bu subaa mu folli ko fal keneen ba ba mu fiy bu fi jógee nag dootul fal ganaar sax woo ma laa nit <laughs> waaw. Sëriñ Tuubaa moom gis na mu dem ci Jérusalem ci miir boobu ñu foon xaw ñu koy naan ñu ñu koy xaw a ñaata naan Sidi Kaba mais est-ce que sax njuliteem l'islam li l'islam wóor na ko tey jii ba nekk suñ suñ beneen gis mu demoon ci Jérusalem maanaam miir de lamentation. Hmm. di fon miir ba noonu. ñu koy naan est-ce que kii naan est-ce que l'islam est-ce que na wala wóolu ah islam gis nañ ko fii senegal mu ngi julli di woor di def li nit ñi def kay wér na ah, waaw fóon miir du dara fóon miir dafay dafa am loo xam ne ñun dañ koy garaawul fekk garaawul waaw fekk garaawul fekk euh, du dara loolu du dara parce que politique moo mel noonu politique bi moo mel noonu buñ la yebalee fenn il faut nga def la ñooñay def waaw il faut nga def la ñooñay def doog a mën a normal waaye boo ko deful duñ la wóolu duñ la wóolu duñ wóolu ko la yebal looloo tax hmm. jërëjëf oustaz ñu ngi lay ah, xam naa li ñuy tàggoo rek mooy ñu dal rek mm-hmm. ànd xel ànd ak sago ànd ak tey ba def suñu élection yi mu jeex ak jàmm yàlla tànn ka muy tànn mu jiitu dem ba jeexal ak jàmm yàlla tànnat ka muy tànn mu jiitu dem ba jeexal ak jàmm yàlla tànnat ka muy tànn mu jiitu yàlla ba ba ba ba abal abidi moom daal ba fu mu yem baax na waaye daal yàlla may jàmm yàlla may jàmm yàlla na yàlla may jàmm yàlla na yàlla may sutura ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki Sénégal ku doon laajte Faly ngi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee da nga am jafe-jafe ci sa wàllu wérgu yaram dama ne nga am jafe-jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne da nga am ay ci sa yaram yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy sa boroom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa daal di tëju ba loo làmb mu dëgër ngay déposer ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bëj a dee ñëwal seet ci soxna aada yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo war ci biir réew mi war ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord ne soxna aada seexu yàlla bi mooy dal liñ kóor ci wàllu seet moo lay xool teg la ci kanamam di la wax sa démb sa tey ak li war a ñëw suba dama ne seet moo ci man ci Sénégal moo ci man ci Afrique moo ci man ci àdduna bi ma ne te ay cangatam amul fenn bu la dugalee fii ba sang la booy xëy sa yaram daal di ubbeeku ba loolaal mu nooy te foo jublu ñu bi la ay buntu kon nag daaw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon waaye nag am na loo xamante ne mënu ma ko bañ a wax yow mi nga mi nga xamante ne mënal dara yow mi nga xamante ne boo nekkee sa soxna guddi da ngay jaaxle lool ba doo sax yàkkamti guddi daal di jot dama ne wool soxna aada mii ne mooy seexu yàlla bi di gàllinkoor mu jox la ci produit yi nga xamante ne boo koy naan di yëg sa bopp loolu nag mooy neexal kër gi loolu mooy neexal sa digganteeg sa jabar produit yi amul benn effet secondaire nag ma ne ñamal rek boo ko ñamee billaahi di nga xam ne soxna aada mooy gàllinkoor produit yaa ngi noonu képp koo xamante nag bëgg nga ci woowal gaaw soxna aada seexu yàlla bi ci ñaari numéro téléphone yii muy 77 76 wala 78 337 16 91 saa yoo ko woowee amul intermédiaire danga nga jot directement su ko defee nga la di koy wax say soxla mu daal di la koy lijjantil ci nu mën a gën a gaawee dama ne wool soxna aada seexu yàlla bi wax ko sa soxla mu lijjanti la ci nu mu gën a gaawee kii mooy soxna aada seexu yàlla bi dàllinkoor bi moo mën moo ëpp doole te moo gën a gaaw